jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuy nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne di leen dalalaat fii ci fi nga xamante ni mooy wasaare làmb di jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi safoo wasaare ci réew mi ak bitim réew tey nag dañu dalal xale boo xamante ni maa demoon ikiri parcelle mbooloo yàgg na loolu di seetaan gis xale bi di bëre ak ay grand di bëre ñi nga xamante ne ñoo ko mag ma laajte xale bi kan la ñu ne rakk Moussa Dioum la ma ni ah Moussa de kii lépp loo pertoon ci làmb boo ko investire ci xale bi di nga am lu kawe sa njort ndax macha allah mën a bëri gi ak dégg bi te wax naa ko saa su ne nee naa mbër bu mënee fecc rek da ngay xam ni kii daa mën a bëre te xale bi macha allah dafa saf xorom kooku nag mooy caat caat la tuddee boppam ginnaaw loolu dañu koy bàyyi bu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñëweel waxtaan bi caat maa leen lay nuyu baax di la siyaar. ay maa ngi bëggee baax a baax a baax. Hmm. ginnaaw ba ma sant yàlla julli si yonent bi di sant suma ñaari waajur di sant sama sëriñ sëñ Seydi mu sëñ Abdoulaat di sant sama sëriñ sëñ Abdou Ngingue maa ngi koy sant bu baax di sant soxnaam awa seex yi sant Moussa Hadj mi nga xam ne moo tax ma dugg si làmb ñëw pour bëgg fajal meram bi mu mer yëpp waaw di sant sama grand Malick Lay borom di sant soxnaam ummi bu baax a baax a baax di sant seex bombaali topp maa ngi koy sant bu wër a wër a wër si santam njaboot géppam si moom maa ngi koy sant bu baax di sant yaayam Seyni bu Saar maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant xaarim topp bu wër ci sant sëñ Mbàkke topp maa ngi bëggee gaa yëpp di sant sama waa ji ma àndal muy pap maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax a baax lu ne lay daj si man waaw maa ngi bëggee waa parcelle gépp daal waaw nga dugg si ci làmb yaakaar naa bu ma juumut bi mooy sa première combat sa première sortie waaw bii mooy sama premier combat kañ. Hmm. waaw mais waroon naa bëre bu yàgg nag bàyyi jëli hmm. parce que maa ngi waroon a bëre le 21 août. le 21 août. waaw far yàlla def Covid bi. Hmm. ñu jàpp ko le 11 décembre bi. incha allah di si yaan ndam. waaw. lan moo la dugal ci làmb. Moussa Dioum moo ma dugal ci làmb. Moussa lu ngeen bokk. ñoo bokk ndey ak baay. yaa topp ci moom. non non topp ma si moom man maay caat. yaay caatu kër gi. maay caatu kër gi waaw. sa diggante ak Moussa lan la parce que damay gis benn complicité bu dox seen diggante yéen ñaar buy fecc sax yéen ñaar ay ànd maam ci bëre beeg ni ngeen mel kaf beeg ree bi seen diggante lan moo ko woon. Moussa dafa doon sama grand bu baax. Hmm. mu doon ku ma yërëm bëgg ma. Hmm. bi may doon xale. di nekk sama yaay la ma jël yóbbu ma néegam ma fay fanaan ba nii ma toll. ndeysaan barki Serigne Bamba. Hmm. bañalu ma dara. di ma taxaw guddi di ma taxaw bëccëg. man jàng. làmb moo yàq sama jàng. ndeysaan barki yàlla. Hmm. wóor na yàlla. Hmm. heure bii nii gars yi ñu heure bii maa ngi doon nekk si cité yu mag yi. Hmm. waaw mais lépp làmb la. ma koy sant Moussa bu baax a baax a baax a baax. di ko wax ne ko nañ jàpp rek te bu bàyyi incha allah. li mu bëgg si man. yàlla na ko suñu borom def. te suñu borom dina ko def incha allah bu baax a baax a baax. yaa Moussa ku dàq bëre. da ngay laajte maa ko dàq bëre <laughs> dégg boobu ngay wax sax. Eh, eh, chaque ah. jour moo ko ko. Ah. nee naa ko dégg benn kaas sa parcelle. Ah. man maa ko naan. yaa daa yaa gën a dégg Moussa Diouf. waaye dañoo bokk moom da see si taatu rek. <laughs> loolu yaa koy jox kon. si kaas bi laaj ko li muy yëngu loolu yëpp yaa koy jox. laaj ko. loolu Moussa kon booy bi sànni na la xeer de. su ma ñëwul du neex de laaj ko su ma tuusul du neex. yaa ko yóbbu des fois ci yow lay xaw a sàccee yenn paa yi sax. laaj ko yenn saa ñu tëdd ba guddi di ko maye sax. non mais ku jar bi boobu jar na lu ne. loolu beneen affaire la moom loolu moom beneen affaire la. <laughs> Ah, mais mu nekk euh, xale boo xamante ne vraiment euh, xale bu ndaw la dugg ci làmb nekk rek Moussa Dioum doon champion boo xam ne làmb ñu ngi koy séentu ndax nag yaakaar naa ne làmb dafa dafa dafa yem bi mooy sa première fois nga génn def interview de. waaw bi mooy sama première fois mu génn def interview. c'est ça. te xam naa ni incha allah moom yow moom yaa mooy gën di jël. ndeysaan waaw ndax yow yaa ma njëkk a jël interview. ndeysaan yàlla bu si jot dugg. yàlla naa dema dema dema dem ba mooy loolu. Hmm. Euh, bokk na ci li nga xamante ni moo ma gën a neex ci sportu làmb xale bi nga xamante ni mosul génn nga jël ko interview génne ko bokk na ci loo xamante ne vraiment su day bokk ci suma sag ndax euh, am na ci xale boo xamante ni mu ngi dëkkoon caara euh, yi ba mu koy génnee vraiment ba mu koy jël yaakaar naa moom it loolu la ma waxoon. mu nekk xale boo xamante ne tas yaakaar def na première sortie keroog bërki démb am na ndam ñu koy nuyu bu baax di nuyu famille ñëpp di leen jaajëfal euh, tey sa combat bi nga am adversaire bi xam nga ko. waaw adversaire bi xam naa ko kañ. foo ko xamee. woo adversaire bi woo nañu CNG. gisante ngeen. gisante nañ ma moom ba pare. bi ngeen di gisante yéen ñaar CNG mooy seen première gisee yéen ñaar. waaw mooy su wala xamoon nga ko avant boobu. non xaw ma ko woon avant boobu parce que moom mooy septième septième nit bu jël avance bi. moom parce que woo nañ hmm. xam na loolu mu bañ. moom mooy septième bi nangu. ma ko hmm. koy sante bu baax a baax a baax. di ko wax bu arbitre sifflé na ñëw teel a tëdd rek. moom ban bii mooy ñaata combat wala jotoo xam loolu ci moom. non moom nag jotumaa xam loolu moom si moom. xamoo ba xam mën na bëri wala mën a bëri. xaw ma loolu si moom. xamoo ba na xeex wala mënul xeex. waaye Moussa Diouma sama mag. <laughs> dugg ko ci guuta de. xaw ma ku la jëlloo avance bi dugg ko ci guuta booy bi dégg naa loxo yi day dox aller retour. avance bi loxo bee raw pousa basin kay. baa jëlee avance bi. Uh-huh. yàlla xam na ne kenn jëlloo ma ko man maa ko jëlal sama bopp. kenn hmm. jëlloo ma ko maa ko jëlal sama bopp mais bu dee xeex ak bëre dama koy jël jox ko Moussa loolu lépp dina ko def si man. Hmm. waaw te bu bis baa bu ma ñëwee. Hmm. di nga xam ne Moussa Dioum ñëw na si làmb ji baa jëlee. waaw. ana Moussa daa bàyyi bëre wala mu ngi ci làmb ji ba léegi. Moussa bàyyiwul bëre mukk si kër àdduna Moussa bëre moo tax mu mel nii nit ñi xam ko pour am muy bàyyi bëre fajar 4 heures du matin la may yee barki Serigne Bamba ñu dem géej maa moom. yéen ñaar barki Serigne Bamba Mbacke. billaahi est-ce que Moussa mi ñu xamoon tëmbal masi bi ñu xamoon weex bi non Moussa boobu moom góob ne mu ngi ci réew mi. baal ba mu ñëw baal ba la ba mu ñëw incha allah di nga xam ndax mu ngi ci wala nekku ci. Hmm. waaw. ko tëgg. làmb ji combat Garga 2 la a Mama Lamine bi. ah kon waa Vox Arena ñoo ko. ñoo ko tëgg waaw ndeysaan combat boobu la. Hmm. di si woo Abdou Naar maa ngi ko si woo bu baax a baax baax. Hmm. di si woo Diouf di si woo Badou Menga. Hmm. maa ngi ko si woo bu baax a baax di si woo Go di si woo Guèye. di woo Njaa Séeri Bousso. Mhm. lu ne la ñuy defaral barki Serigne Bamba Mbacké. Mhm. maa ngi ko si woo bu baax a baax a baax a baax. Mhm. di si woo waa parcelle gépp 1 ba 26 maa ngi leen di woo si combat bi. ñu ñëw jàppale ma ma daan ndànk ñu njëbi ndànk incha allah xeexloo ma kenn. xulooloo ma kenn man maay jël responsable maay xeex maay xuloo. Hmm. waaw ci digg géew ba. kese waaw lépp yaa ko fay def. lépp maa koy def. Ah, booy làmb dafa garaaw de. man si làmb laa juddoo nag. Mhm. laam bu garaawee si man nag yow jiili. ndeysaan waaw loolu da day day garaaw rakk bu sa ajjub. waaw man si bari na rakk mbër yoo xamante ne fi mu toll de. rakku mbër yooyu ak yi bokkul man sama bët xam nga fa laa ko teg bàyyi jiili. parce que Serigne Bamba si ñoom ama neex ñooñu laa teg sama bët. mais xooluma ñii xam nga lu tax. c'est que booy soog dugg si làmb da ngay dégg lu ne. Hmm. yaa may dégg. Hmm. mais boo demee bas kanam dañ naan accam mooy mbër mi. ndeysaan mais man. acca mooy mbër mi yàgg naa koo dégg. Hmm. te loolu rek la ñuy dégg. ba hmm. faw incha allah. Hmm. di bëggee gaa yëpp waaw. di leen wax ne nañ préparé combat bi. ñu ñëw taxaw ma ma ñëw daan. incha allah ñu ne fañ newoon. waaw kese yaa ngi fan ba waaye jili yow sañ na maa laaj ban écurie. ndax du damay laaj parce que booy seen mag day nekk ci écurie bi ngeen dem ci beneen écurie man xamalu wala dara dama laa gis parcelle mbooloo ngay entraîné est ce que yaa nga fa sax. non parcelle mbooloo laa am. Hmm. di leen di profité di nuyu maam leen sama kosu ak père Sagne maa ngi leen sant bu baax a baax. di sant sama maam lees borom jàpp soxor bi. di di sant sama si Fallou. sama hmm. kosu moom tamit maa ngi koy sant bu baax di sant waa Nindi. Hmm. di sant Noa maa ngi koy sant bu baax a baax a baax. di ko woo si bi waaw. Passe Mbolo yaa ñan ñu yéen fa nekk actuellement ci champion yi. non mbër yi fa nekk bari na Oninga mu ngi fa. Mhm. Opele mu ngi fa. Mhm. Gadja Fama mu ngi fa. Mhm. mu ngi fa moom dafa war a bëri le douze yàlla na ko suñu borom may ndam. Zëm. màgget waaw Zëm. mu nga am xale bi dëkk fële nu mu tuddati jam ñaajo waaye booy bax ndaanaan ci làmb Zëm am na combat de. incha allah laa lay wax ni Parcelles Mboro ren. ñoo jël paie bu lii ñu. teggi laalaw bu ñu ko bàyyiwul. Hmm. ñoo jël pee. ñaata sortie la parcelle mbooloo def actuellement. instant yi ñaata sortie lañ defagul. Hmm. non day mel ni génn guñ de waaw day ni génn guñ de. mosu góor leen bëree bëree obali moo ubbi saison bi. obali moo ko ubbi obali waaw digganteem ak Pape Yékini. waaw hmm. obali moo kon boobu rek ngeen kii yeegul boobu lañ amagul. su ma man maay doggali. maa ngi sam jël waaw. ndeysaan. ma lay Oninga maa ngi koy ñaana suñu borom def mu am combat. ndeysaan. maa ngi koy ñaan bu baax grand bu baax la. Mhm. waaw moom moom yàlla na yàlla def mu am combat. mais Malick lay mhm. maa ngi koy sant bu baax. Mhm. ak jabaram ummi. lu ne lay def suñu maa ngi Moussa Dioum. ndeysaan barki Serigne Bamba ba démb si guddi sax mu ngi naan affaire bu jeexee wax leen. barki yàlla maa ngi koy sant bu baax di sant Cheikh Bombali. ndeysaan moom tamit lu ne lay def si man combat bi mu jotee ba léegi. mayu ma jàmm. ndeysaan mu may jàppale nu ma war a jàppalee lépp lépp. Mm-hmm. maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm. Mm-hmm. di sant Moustapha xaritam. Mm-hmm. maa ngi koy sant bu wër a wër a a wër. waaw. naa lay jaajëfal bu baax kontaan naa ci teew bi nga xamante ne teew fii. ah bàyyi jile maa ngi lay delloo maa ngi lay teew bi yow tamit yow nit ku baax nga. waaw yow moom maa ngi lay sant bu baax a baax a baax. yéen a baax rek. di wax émission bi. yàlla na doon ay émission émission. amiin yaa te incha dina ko defal yow yàlla na la yàlla defal jàmm. amiin jàmm rek ngay am incha allah. di sant maire sama koñ yi ñëpp. ak xale yu ndaw yi. Mm-hmm. jeunes yi maa ngi leen sant bu baax di leen woo si combat bi. Mm-hmm. di sant Baba Soxo. Mm-hmm. Seynu Géwél Jibi yow maa ngi koy sant bu baax baax a baax di ko woo si combat bi. di sant gaa yëpp maa ngi leen di woo bu baax baax a baax si combat bi ñu ñëw jàpp si. ñu ñëw bañ a xeex bañ a xuloo. lépp maa koy def. jëloo ma kenn. risque muy def dara man maay def lépp man seul. waaw. incha allah. jërëjëf mbokk yi dégg ngeen ko nee na caat la tudd waaye man dama naan caatu jum rek ndax xam naa ne munul génn ci Moussa Jum ndax ñoom ñaar junni la ak mille tour yee bokkul rek waaye ñoo yem li ñuy jar ndax ñoom ñaar benn lañ Moussa Jum nag nekk xale boo xamante ne vraiment nit ku baax la Moussa Jum xale la wala mag la ci man. xale la ci man de. yow da nga naan mag mais xale la xale la ci man la wala mag la ci man. Moussa Jum. non yow xale si yow. Moussa kon xale la boo xamante ne xale bu baax la vraiment ma koy jaa jaajëfal sama booy la moom Moussa Dioum maa ngi koy kontaanee bu baax di kontaanee Pape ndooy di ko jaajëfal bu baax Pape Ndoye mu goo fay maa ngi koy jaajëfal bu baax moom it grand bu baax la di leen jaajëfal mbokk yi di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb ak beneen champion jërë ngeen jëf.